bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin il amiin wa ala aalihi wa saxaabatihi al ghurri al mayaamiin wa ala xayri xadimihi dil xabli al matiin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa ta'ala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Sëriñ Tuubaa Seex Mahamadul Muntaqa sunu Boroom dolli ko fay yàggal dolli ko wéeral ba mu àggale mboolem ay naalam ak mboolem ay yéeneem di ko ñaanal mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di ko ñaanal suñ bopp nun taalibe Sëriñ Tuubaa yépp desewaat nan fii ci seen télévision Lamfal ci seen émission Fardul Hayni tey jii di gaawu di ñaar fukki fan ak ñaar ci shahru ramadan al mubarak 1441 hijriya démb ñu ngi yamoon ak yéen ci fi doon leeral lu aju ci ki nga xam ne ngàntam dafa dañ te ngànte li dañ fekk li des ci ñaari julli boo ko waxtu de seen waxtu julli benn rakka rekk moo fa xaj jant so mbaa jant fenk ñu xamle woon ne su dee ki nga xam ne ngàndam daa rot te diggaam ak soog jant laab julli benn raka fi moo benn raka moo fi xaj kooku tekku saani koy war tisbaar wàcc na ko fekk ñetti waxtu nag ñetti raka wala ñeent xaj na fa nag su boobaa nag ñaar yëpp war ko muy tisbaar takkusaan su dee ca guddi ga su fekkente ne li jant fenk benn raka fi xaj gannaaw laab ga gaay rekk a ko war timis wàcc na ko su fekkee ne ñett rakka ma la xaaj na fa nag boo ñaar yëpp war ko muy timis ak gee loola tënk ci bayit yi ne ndem ñaari julli nag yu bokk waxtu la mu jot mu waxtu yeen nii lu yomb la ba julli benn rakka rek waxtu wa wéy ci fenko jant mbaa soo xam na dal di wéy ci dolli ab rakka ci ak sopp ndaxam buy ñett nag na dal di ñeenteel ko te dem te dal di fay ga mujj ngir ne waxtu wa fu mu xate rek ba koy jago yu mujj wa fu mu jotte nag ñaar ya gannaaw bu nattalee laaj bu mu far bir ne du dem mukk gële mu julli ak mu ñàkk julli ñoo ci yam wa mujj rekk moo ko war tanam ko xam ñëw nag ci lu aju ci julli ragal julli ragal jàngale nañ ko ci émission yu weesoo mooy su fekkente ne day xareeb diggante lislaam ak kéefër sàppes julli ñi taxaw nii sàppes yéefar yi tax taxaw ne ñu songoo di xeex ñii di xeex ngir yëkkati kàddug lislaam muy jihaad ñu waxoon ne jihaad lum tar tar du tax su julli jotee ñu sañ a waxtu ndax ni julli foore ñu xamle woon ca ne nag su dee tisbaar ci misaal su jotee julli yi dañu seetli ko ñaari xaaj benn xaaj ba des jàkkaarloog noon yi benn xaaj ba dem beru ne ak imam su li xaamale imam imam day julli ñaari rakka ba jug taxaw ci ñett ci ñetteel ña ca des kenn ku nekk kenn kenn noo àggale sa ñaar ak yàlla dese su àggal dem jàkkaarloo noonu ña ci des ñëw imaam mi nga taxaw di xaar ñee ñëw kàbbar ci gannaawam mu jiite leen ñaar rakka yi mu dese moom sëlmal bu sëlmalee nag ña ca ñoom ña ko toppan kenn ku nekk jug mott sa benn rakka dañ koy kenn kenn kenn du kenn du ko roy ci kenn su fekkee julli ragal gi nag daa xew ñu julli sawar imaam jiite na ñaar rakka ba taxaw di xaar mbooloo mottali nañ kenn ku nekk mottali na ba del jàkkaarloo ba xaaj bu mujj bi ñëw kàbbar ci gannaaw imaam ñu yëg na noon ya daw nañ léegi luy seen seen mbirum julli nu muy demee léegi kuréel bu njëkk ba mottil nañ ba dañ jàkkaarloo ñu kuréel bu mujj bi bu mujj bu njëkk bi ñi ngi mottali ba kenn ku nekk am na benn rakka rakab ñetteel ba des ñeenteel nañ bàyyi xel baax li may wax imaam kàbbaar na jiite xaaj bu njëkk bi ñaari rakkaam ba taxaw ñetteel di xaar ñee kenn ku ne kenn ku ne ngir ak kenn ku ne àggal sa ñaari rakka yàlla dese mi ne ba kenn ku ne am benn rakka nag mu des benn rakka ñu yëg ne noonu ya daw nañu suba luy xew mooy ñii doon mott li kenn sëñatu ca defaat dara ku ci sosaat dara ci sa julli sa julli yàqu kim fekkoon ci rukkoo na ne tekk ci rukkoo ba sëñu ta siggi kim fekkoon rukkoo ba siggi ci rakkaam ñenteel sëñu ta sujjooti na fa ne tekk kenn ko ne fa nu toll daal na nga ne fa tekk ku ca defaat dara sa julli yàqu xaaj ba fa desoon dañuy ñëw lay kàbbar ci gannaaw imaam imaam jiit leen ñaar yi mu jëm su demee ba dab ñu njëkk ña na fam leen dabe foofa la ñu roy roywaat imaam seen lay seen julli kam fekkoon rukon na bàyyi ba imaam rukon rakam ñenteelam ba sigg mu door sigg nag ci siggi imaam roy ko la des waaye su sosaatee dara ju ak julleem yàqu su imaam motale ñaar rakam sëlmal ñu njëkk ñi sëlmal ñu mujj ne kenn ko nekk jóg motale sa raka bu mujj ba door sëlmal lu sew la nag lu sew la lu lu lu lu lu xaw a runge waaye boo ko seetloo rek xam ko loolu ci bay di ne imaam su dee jiite ci julli gog ragal imaam su jiite ci julli gog ragal ba jiite xaaj ba njëkk ñaari rakk sël mu daldi leen junj ñu jug ta àggale seen ñaari rakk ya ca des mu nekk ñële ñu kenn kenn indi rakkab ñetteel ba jug taxaw ngir indi rakkab ñeenteel ñu daal di yëg ne noonu ya nag far nañu daw na xaaj bu njëkk bee ne tekk fañ taxaw xaaj bu njëkk bi nañ ne tekk fañ taxaw te ñu sosaat dara ndegam sos nañu rek seen julli daldi di yàqu nañ ne tekk rek kuréel ba des kuréel ba des na daldi ñëw roy ci imam ca fam taxaw mu jéete leen ñaar yu mujjëm moom imam ndegam imam dam na kuréel ba jiitoon ñu sof ci seen julli ga roy lañ dese woon bu sëlmalee ña mujj dal di àggale seen ñaar raaka yi ca des te yiirale lu lu sew la waaye neex naa neex naa xam li ci topp mooy lëkkale diggante ko ak fay ñu tudde xadaawu ak binaawu xadaawu mooy ko imaam raw su imaam sëlmalee mu war a jóg mottali loolu la ñuy tuddee xadaa u binaa u nag mooy lañ jàngale woon ca gannaaw mooy ki nga xam dafa bori daa ànd ak imaam ba ci digg mu bari tamori mu bari day génn rax si bakkanam su desee du tàmbaliwaat day jokk rek fam fam fa mu yemoon àggale ak juleem àggale ko lu ñu tuddee binaa u léegi xadaa u ak binaa u suñ dajana nekk nu muy def ma joxe ci misaal dangay ngay roy ci imam bi gee waaye imam nag bi ngay ñëw ci jàkk ji fekk nga ma rawale benn rakka rakkam ji ko raw na la rukkoo na ci ba sigi nga doon ànd ak moom rakkam ñaareel ba sa rakkam ñaareel mat sa rakkam ñaareel mat na sëkk mbori dab la maanaam fa mu toogee di taay rek mbori dikk nga dem raxasi say bakkan del si fekk imaam jeexal julli ga ba sëlmal léegi nooy def kon binaa war na la xadaa war na la ndax ñaar yu njëkk yi dalaa raw rakkaam bu njëkkam yi dalaa raw ndax nee naa bi nga ñëw fekk nga mu ab rakkaa nga am benn rakkaa am ngant génn rakkaa yu mujjee raw la léegi nooy def foo xadaa u ak binaa u dajee da njëkkee binaa u door def xadaa mooy da ngay njëkk a jokk door a nan la koy defee loolu nag moom la mooy la ibnu xaasim wax ibnu xaasim naa la kilifa gu mag la ci ngir mi defi ni mooy da indi ñetteelu rakkab imaam fekke woon nga rakkab ñaareel ba mat ñetteel ba kon moom ngay njëkk indi ndax da ngay binaawu léegi da ngay jokk ñetteel bi imaam faatiha dong la ci jàngoon kon faatiha dong nga ci jàng yow ruko sujjóot da toog imaam moom toogu ci woon ndax ñetteelam la woon yow na sa ñaareel la moo tax da nga toog yow daal di jugaat indi ñeenteelub imaam imaam faatiha dong la ci jàngoon kon faatiha dong nga ci jàng boo ruko sujjóot nooy def dangay toog ndax mooy lan mooy rakka ba mujj ca imaam gannaaw rakka bu mujj la nag moom moom mooy doon ñeenteel imaam faaw da nga cee tokkoon nga toog taaya ba fa imaam waroon a sëlmale nga jóg na dooru indi rakka ba mu la rayoon mooy rakka bu njëkk ba jàng ca faatiha ko saar biral ko rukkoon su jotoo taaya sëlmal ki loolu dal mën a gee gee jooju rakk yépp da cee toog taaya kon suñ la caxoon ne la lan mooy julle gaa gi nga xam ne ki koy julli ñeent rakkam yépp dacee cee toog googu la mooy rakkam ñaareel nga fekke ci imam bu jëw bu jëkkëroon na la rakkam ñaari da cee toog kon na la ca mbari dam na la nga dem raxasi sa bakkan dikk fekk imam raw la ñaari rakka dangay ngay njëkk binaaw kon da ngay njëkk a fay ñetteelu imam da caa taxoon waaye doo ca doo ca taxaw da toog ndax mooy sa ñaareel indi ñeenteelu imam mooy dañ cee toogaan ndax mooy rakab imam bu mujj indi rakka bala bala rayoon mooy rakka njëkk ba ba tey toogaat taay sëlmal kon sa sa sa géej yow rakka yépp da cee toog taay loolu laa juñ ci loolu nag imam eh, bi ko xalil xam nga xalil moom day téere bu fasu day fekk lu baree bari mu tënkalu ci gaat yu baat yu gàtt moo tax xalil bala ko nit ke jàng war naa am mustawa bu kawee ci fiq ba noppi lu fekkee amoo mustawa maa jàngu téer yi njëkk soo ko jàng doo ca xam dara ki la koy jàngale faw mu dégg ko lool te mën a leeral lu ko may dugg sa bopp lii ma doon leeral ni mu guddee lépp ci baat yi la ko xalil tënk dafa wax ne wa isa jtamaa binaun wa xadaun li ka raaifin adaraka thaniyatal wustayayni xaddamal binaa wa jalasa fi axiril imam xam loolu daa fasu buñ la ko leer lu mënoo xam lu mu doon mu laa wax ci béy di ne ndegam dangaa roy ci imam geet ndegam danga ndegam dangaa roy ci imaam geeta yow raw na la rakka bu njëkkam nga doore ñëw fekkee bu ñaareel ba mu mat nga nga far bori fekkee bu ñaareel ba mu mat nga far bori bañaar ye mujj raw la kon nooy defare binaaw ak xadaaw muy jokk ki fay fu ñu fi dajee jëkkal a jokk door a fay defin mooy na indi rakka jàng ca faatiha dong yalu toog tataaye ca taraka boobu moo di ñetteelu imam te ab ñetteel fatiha dong lañ ca taam li tax ci li tax mu toog ci moo di am ñaareelam te ñaari rakka tooga ca yoon wana am mu indiwaat rakka beneen jàngati ca fatiha don dellu toogi taaya ca li tax mu toog ca moo di ñeenteelu imam mu toog ca nam ca tooge woon roy ca imam mu door a fay rakka bu njëkk boo bële jàng ca fatiha ko saar te kon noonu lañ ko tënkee sew na moom it waaye neex naa xam ci boo ko seetloo ñu teg ci ku ñu wóotal tey ku raw mooy na ko dégg lu baax ndax lu lu lu lu rungele moom it imaam ji gee lay jiite ànd naag mbooloo imaam dem ba fasub rakka rakka mu njëkk fasu am ñaar ñu dugg si daal di kàbbar roy ci imaam ñoom rakka bu njëkk raw na leen gel ñu julli rakam ñaar lañ fekk si ñu ne ba rakam ñaareel bi mat imaam ngànt dab ko imaam su ko ngànt dabee day def nii rek ci gannaawam làmb comme daj dalay xëcc taxaw loola ci palaasam daal di génn moom sooy kam xëcc nag kooka mooy mottali mbooloo ma seeni julli lañu loolu ñu tuddee wuutal jàngal nañ ko ci émission yi weesu julli gi wuutal fekke daa xëcc in nag taka fekkam xëcc doon ka doon bokk ci ñaar yi mujj a ñëw nga xam ne moom rakkaam bu njëkk raw na ko mën a xëcc ku mu war a mottali nii seen julli léegi ñoom ñëpp seen julli muy demee kiñ xëcc nu ak juleen di deme mbooloo seen julli nu muy deme moom rak ray nañ ko rakkam njëkk rakka ñaari képp la fekk imaam am na ngant xëcc na ko loolu na muy def mooy day njëkk a mottalil imaam ak julleem rakkam ñaari la fekke dong na ca toog ma imaam sax toogoon na ca ndax rakk nee na rakka mat na sujjóot na sa ñaar sujjóot yëpp ba toog ngaan door ko dab day jug taxaw ci ñetteelu rakka imam bu fa nekkoon faatiha dong la ci jàng kon na jàng faatiha dong dem sujjóot du fa toog nag su fekkonte ne moom ant du wan la muy mottali imam kon moom dafay toog ndax mooy ñaareelam waaye comme imam li matul ak juleem kon na imam waroon def rek lay def kon du fa toog day jóg taxaw jàngaat fatiha dong ndax mooy ñeentalu imam te imam bu fa nekkoon fatiha dong la ci jàng toog taaya mbooloo mépp taaya su demee ba fi fa imam waroon na sëlmale mu junj mbooloo ñu toog xaar ko mu jug motti rakka ba ko imam rayo woon toog bu sëlmalee ña àndoon ak imam ci njaar bi nu julli ko doore sëlmal kam àndoon dugg si doore jug moom motti lañ ko lañ ko rawee rakka bañ ko rawee seet lu baax li ma wax de lu sew la dama koy baax mu waat imam day jiite gee ba am benn rakka ba dugg ci rakkam ñaareelam ñaar dugg si ñaar ñoo daal di kaabar ci gannaaw imam imam rakka boobu mat rakka ñaareel mat moom lañ fekke maam ngànt xëcc kenn te xam xam xëcc bokk ca ñaar ñi mujj ñëw day mottalil imaam ak julleem ba noppi ma day indi rakkam ñetteelu imaam jàng ca faatix dong su jot jugaat indi ñeenteelu imaam jàng ca faatix dong toog taaya fa imaam waroon waroon sërmali bu fa àggee nag day junñu mbooloo ñu toog xaar ko mu jug mottali rakka ba ko imaam rayoon muy rakka bu njëkk ba jàng ca faatixa ko saat biral ko soo toogee taay sëlmal mbooloo ma àndoon ak imam ci njëlbéenu julli ga door a sëlmal ki ànd àndoon dugg si door a jug nag mottali ko rew moom xam ko ci xiyaas ci xelum kese boo ci xalaat da nga jàpp ne gannaaw moo kii bokk atte ki ki mu bokkal ñëw na kon bu bu jug mottali kooku daa war a jug mottali ànd ak moom waaye su jógee ànd ak moom rek ak julleem yàqu kon ñëppay xaar bu sëmalee mbooloo ma sëmal kam àndoon dugg seen door a jug moom rakka ba ñu ko rew door a loolu wuute am na ci waaye mooy wax ji lëng ndax loolu mu wax moom la euh, euh, moom la li ëpp ci borom xam-xam daal lool lool wax borom xam-xam yi ëpp loolu la wax su ko defee loola ci bay di ne imaam ju jiite gee te ànd ak mbooloo ca tàmbalik julli ga ànd ak wóolu mu dem ba fas rakka ñaar dugg si mu dem ba ñeenteel ba fasoo ngant asi mu xëcc kenn daldi wóotal ndekekat ca ñaar ña mujj ñëw la xëcc ndaw lu xat newita mottali jullig imaamam mu toog te tay ñépp roy ko ci jëfam mu juññ mbooloo ma ñu toog nekk mu jug fay ñetti ràkk yañ ko raw defin wa nag na andi rakk jàng jàng fatiha saar li may wax daa dafa wuteeg la ma waxoon léegi mooy bii moom bu dee bii dem na ba fas rakkam ñetteel ñaar door dugg si waaye ba tey na moo waxee woon ca bu doon fekkoon benn rakka lañ bu fekkoon eh, benn leen rawee noonu lay demee rek noon lay demee ba tey mooy day mottali imaam ak julleem fay la ko imaam réew bu fekkee benn la ko imaam mu fay booba bu fekkee ñaar la ko imaam réew mu fay ñaar ya ba tey ba tey kem noonu. moo tax imaam ju jiite gee te ànd ak mbooloo ci tàmbalik julli ga ànd ak wóolu mu dem ba fas rakka ñetteel ñaar dugg si mu dem ba ñeenteel ba fasoo ngànt asi mu xëcc kenn daal di wuutal ndekekat te ñaar ña mujj ñëw la xëcc ndaw lu xat nawee tamatu lu jullit imaamam mu toog tataay ñëpp roy ko ci jëfam mu juññu mbooloo ñu toog mu jug mu jug mu juññu mbooloo ñu toog nekk mu jug fay ñett rakk yañ ko raw defin wa nag na andi rakk jàng faatiha ku saar te jekkitaaye ngir na ñaareel la nagaar indi beneen bu faatiha bu faatiha ku te doo fa toog ngir ne ñetteelam la na am indi baneen jàng ca jàng ca nag faatixa rek te taaye sëlmal ca te fu mu sëlmali nag ku fekke woon julli ga lépp sëlmal moroom ji jóg mottali door a sëlmal képp ku toogutoon te nekk xalifa ba xalifa ba mooy ki ñu wutal julleem nga yàqu su negeet sëlmal ba donte li koñ jiitale benn rakk rek mbalu ko ëpp faw nii wala du jag kon mooy imaam ñaari rakka am moom bu door dikk ñetteel ba fasu mu am ngànt xëcc mu bokk ci ñaar yi mujj ñëw kon benn rakka lay mottali imaam kon ndax ñetteel bi fasu na kon rakka mujj bi képp lay mottali imaam toog fam imaam doon toog sëlmal mu toog fa bu waree sëlmal ju ñu mbooloo mu ñu toog mu jug ñu toog nekku mu jug indi benn rakka rakka bu njëkkub imaam jàng ca faatiha ak saat biral toog taaye ndax mooy ndax mooy ñaareelam jógaat jàng Fatiha ak saar ndax mooy doon ñaareelu imam ñetteelam la waaye waaye nag mooy rakk mooy rakkam mujj moom ndax ñaar la ko imam rek woon da cay toog taaya su ca taaya ba war a sëlmal loolu mooy mbooloo ma ñu ko doon xaar bu ca taaya ba sëlmal nag mbooloo ma ànd ak imam ci njëlbeen ga sëlmal ki mu ànd loon dugg see door jug mottali sëlma kon na nga ko xam ba muy benn rakka bu dee ñaar rakka bu dee ñett rakka noonu lay fay fi ne loolu moom it li muy gudd gudd gudd soo demee ci axaru masaalik ci ñetti baat la ko tënk axaru masaalik nag téere la boo xam ne xalil la xalil la rek ma dañu indiwaat xalil dindi ca xii la mooy xawalaani aqwaal ya mooy fépp foo xam ne ñeenti wax da caa daje mbaa ñaar mbaa ñett mu jël ya ca gën a lëng wàcce yi ca des moo tax boo jàng jàng boo jàngee axram sare mën ngaa bañ jàng euh, xalil da nga da koy liir xam la ci nekk man fi ma doon bàyyi woon xalil bu yàgg axram sare moom laa jàng waaye boo ko jàngee nag soo demee ci xalil da ngay xam lépp moom ci ñetti baat la ko tënk li ma wax li muy gudd gudd ñetti baat képp la wax wajalasal mas boo xuli salaamihi képp la wax génn ci moom te leeral yooyu mu lim léegi yëpp ca la aju mu ko ñetti baat moo tax yooyu téere doon yu jafe yoo xam ne moo tax may la bala nga ko jàng faa war nga am mustawa bu xaw a kawe tuuti ci fiq doon ko mën a dégg kara ko jàngal mën a jàngale dégg ko te mën a leeral ndax loolu wax la muy gudd gudd gudd ñetti baat la ko tënk wajal sa mos box li salam yi daal ciy génn ba ca toppaat imaam ji tukki wóotal aji sax ma joxe misaal imaam ab musaafir la mooy day wàññu julleem te mi ngi jiite tisbaar mbooloo ñam jiite nag ay musaafir am nañ ca ni moom ay muqim am nañ ca mooy ñu fi dëkk imaam day wàññi ñu fi dëkk dañuy matal imaam jooju nag su fekkee ngant da koo dab mu làmb kenn xëcc fekkam xëcc di ab muqim moom musaafir la daa war a wàññi bala ma àgg bala ma àggale ma njëkkale ne musaafir su jiitee mbooloo mi matal moom su ñaaram matee day sëlmal mbooloo moo jóg kenn ko ne mett li seen ñaar rakk yàlla des kenn du ko roy ci kenn ko ne beru loolu sib nañ ko waaye ay la moo koy waral su fekkee moom mii jiite day day day musaafir waruñ julli rakka rek ñaar rakka rek sëlmal ngant dab ko mu xëcc kenn kam xëcc bokk ca ña fa dëkk war a matal léegi nu muy def la muy def mooy day njëkk a motti lil imam ak julleem imam joto naa benn rakka na ko na indi benn rakka toog taaye sëlmal ba fa imaamam waroon a sëlmale imaamam kon ci ñaar rek la woon am na ñaar taaya na day ju ñu mbooloo mi ñu toog ndékku mu indi ñaar ñaar rakkaam moom yu mujj bu sëlmalee ña di musaafir sëlmal ña doon muqim door jóg ñoom mottali seen ñaar rakka ji des xam foofu ci ci xelum kes da ngay xalaat ne gannaaw moom am muqim la te jóg ne matu kon muqim yi xanaa war na ñoo mën a jóg ànd ak moom te fekk déedéet ñéppay toog ne ko mu indi ñaaram ya mujj sëlmal ña di musaafir sëlmal su fekkente nag sëlmal na ña di muqim ni moom ña fa dëkk war a matal door jóg motte seen ñàkk ñaar ak yeneen dese loolu nag wuute am na ca waaye ñetti wax ànd nañ yoo xam ne ñoo lëng kenn rek moo ci moo moo moo ci wuuteeg ñoom loolu moom la ima moom la ibnu xaasim wax moom la itam sax nun wax borom xam-xam misra yépp loolu lañ wax kenn rek moo ca wax leneen muy ibnu kinaana te moom waxam daif la lam ca wax nag incha allah buñ dee seet dañ ko dañ ko leeral euh, su ko defee dañuy ñëw kon ci ñaanuk bis bi tey ñaanuk bis bi euh, tey ba tey da bokk ci bokk ci ñaani yonent bi saa su ñu tuxale ci moom muy allahum inni audu bika min al barasi wal jununi wal judaami wa sayyi il asqaam day musle ci xeeti eh, ci xeeti tawat yi wàlle feebar yi wàlle da ci musle ma yor su mooy yàlla musal ci lépp li niru ër ak saddum jinne ak ngaana ak yépp wéri di bon mat nay ñaane abu daawud moo ko solo xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne inna charra nnaasi inda llaahi manzilatan yowma alqiyaamati ar rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi summa yanshuru sirraha neen ki yées ci nit ñi gën cee yées wàccuwaay yomal xiyam mooy góor gi nga xam ne day jote soxnaam day ànd ak moom àgg ci moom soxnaam it àgg ci moom mu génn di nettali di nettali di di siiwal mbóotam mën naa jaxasu soxna ba noppi génn di nettali la nga seex ak moom neen ka koy def mooy kii yées ab wàcce waaye ëllëg bis penc lu matam a la yàlla sunu ba mboole dimbale def defal tawfiq kon dig leen daje incha allah suba ci waxtu yi ci seen télévision Lamp Fall ñaan li gën ci ñun yàlla ko suñu doon defal dëppale ko lu ñu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.